observation bi ñu gis moo tax ñuy wax moo di ni que euh, gis nga dialogue euh, dafay am objet dialogue bu mënta doon dafa am mhm. matière mhm. dañu daje pour waxtaan ci lii bon les de référence les <laughs> mais bu ñuy wax aussi histoire bi ñu dund c'est-à-dire que il faut pas sortir du contexte contexte bi moo di ne que conseil constitutionnel bind na président ne ko jàppal date organiser l'élection bi wax ji foofu la jógee président tontul mais président dafa trouver benn voie comme on dit une voie de contournement. Hmm. dinaa la tontu nangu naa li nga wax wante damay euh, wut benn pexe. pexe bi mooy dialogue et dialogue bi lu mu proposé euh, président de la république ànd na ci parce que ils ont conforté le président dans sa position. Hmm. mais loolu proposition yi la ñu jëm euh, mooy élection bi le 2 juin euh, mooy président toog jusqu'au mois de jusqu'au mois de juin mm -hmm. euh, processus électoral électoral ñu xool comment réajuster euh, le processus électoral ñu mën a intégré euh, certains candidats recalés mm -hmm. loolu mooy proposition mais le débat le débat il est très simple c'est-à-dire que proposition yu jóge ci dialogue bi dafa wute ak décision du conseil constitutionnel c'est ça le débat maintenant est-ce que la question c'est est-ce que le conseil constitutionnel dina di boppam ou est-ce que dina leen nangul ok c'est c'est aussi simple que ça on va voir pour man il faut se préparer à deux choses mmh. soit le président confirme toutes ses décisions et dit il faut organiser l'élection avant le 2 avril ou soit le conseil aménage pour dire que je suis d'accord sur un décalage. Okay. Mais pour, pour le moment, c'est la seule décision qui dialogue mënul am légitimité pour décider. Mmh, mmh. Le dialogue n'est pas souverain. C'est un échange de vues. da ngay wax sax xalaat c'était un échange pour c'était des échanges pour pour pour aider le non non non c'est le président à prendre une décision. OK. il a écouté tout le monde ils lui ont fait des propositions moom il va faire des propositions parce que c'est des propositions écrites ah c'est pas oral le mmh. conseil ne discute pas oralement c'est que day bind ne à ah, partir de bu ñu génnee wax nañ ko non le conseil ne va jamais discuter oralement mhm. Mhm. c'est un écrit que tu ah, donnes le mhm. conseil te répond par écrit